tey moom euh, ndox bi bëri na Pape Matar mhm, mhm, mhm. Khalil maa ngi koy wax léegi dafa mel ni dafa am information boo xamante ne bu bees la euh, mën nga ñu ko mën nga ñu ko yaatalal waaw xam nga barki ba ci lundi bi si la si la ñu def li nga xam ne loolu mooy contre expertise euh, si cas ki nga xam ne moom mooy Idrissa bi te euh, ñu reyoon ko fii si Ziguinchor le 17 juin bi weesu gannaaw bu waa wi Askan Wi doon def euh, manifestation donc bu ñu jotee li nga xam ne loolu mooy famille bi ñoom lu ñu wax rek ñu ne c'est dans quarante huit heures mooy foofu boobu journée lundi bi dans quarante huit heures la ñuy jot résultat bi léegi léegi la ñu am confirmation bi si famille bi d'abord ensuite gis nañu ni ay responsable yu yeeyi askanu yi donc euh, def nañu si euh, donc euh, seen bind nañu ci seen page Facebook comme Twitter pour rek wone li nga xam ne loolu mooy comme expertise bi lu mu révélé mooy Idrissa Goudiaby boobu lu ko rey mooy bal moo ko rey donc lu ñu jotoon a am si information si autorité judiciaires yi nekkul loolu moo am tey jii lu ñett expert Euh, yu PAM euh, bi pour def contre-expertise bi lu ñu wone mooy Idrissa bi boobu bal moo ko rey en réalité donc loolu mooy information bi ci Ziguinchor ni ñi commencé nañ ko partagé euh, donc ñi jaaxle ñi naan xamoon nañ ko donc imaginez donc ce que ça fait comme réaction fii si Ziguinchor Pape Makhtar. Idrissa Goudiaby boobu moom la autorité yi nii woon dafa am lu ko rey lu ñaaw loo xamante ni mun nañ ko méngale paaka wala wala wala en tout cas. lu ñaaw lu ko rey lu wuteeg bal pistolet. waaw waaw loolu autorité yi waxoon ñu ne un objet contendant lu mel ni paaka wala leneen. Mhm. Euh, tey euh, lu autopsie lu contre expertise bi wone du loolu contre expertise lu mu dafa confirmer ñi nga xam ne ñoom ñooy témoins yi ñu gis euh, Idrissa Goudiaby bu ko bal bi di dal ñu ko yëkkati daal di koy yóbbu hôpital te muy ñu koy naan ñu koy encouragé naan doo dee. Mhm. balaa sax soo ñu sukkandikoo si ñooñu lu ñu yëkkati si la ñàkk bakkanam kooku di Idrissa Goudiaby donc lu autorité yi waxoon jaaxal na Ziguinchor waay yu bëri yi nga xam ne xamoon nañu lu reyoon kooku di Idrissa Goudiaby tey jii ñu am confirmation ni bal moo ko rey donc mu doon information bi nga xam ne dafa jigi dayoo Pape Matar dernière question balaa ma lay bàyyi euh, Khalil euh, kan moo autorisé contre expertise bi procureur bi procureur bi autorisé na ko amoon ay péripéties parce que famille bi bu ñu constitué euh, donc dem préparer pour def li nga xam ne loolu mooy contre expertise bi gis nañu ni procureur bi bañoon na mu génne woon benn note euh, bañal famille bi pour ñu def li nga xam ne loolu mooy contre expertise wante famille bi exiger imposer li nga xam ne loolu mooy contre expertise boobu euh, ba finalement ñu am gain de cause ñu autorisé ko ñu daal di outil ji Dakar foofu lañ ko defee. Mhm. Euh, bu ko defee Dakar mu révélé li nga xam ne loolu mooy résultat yi. Mhm. Khalil Diémé ñu lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay jaajëfal Pape Matar. Moustapha euh, yaa ko déggandoog ñun euh, mbir boo xamante ni bu doy waar la bu demee ba euh, ñi nga xamante ni en tout cas médecin légiste dañuy naan dañu am lu ñu tudd parole assermentée bu demee ba seen kàddu dañ koy wax ñeneen ci ñoom di weddi seen i seen i kàddu yooyu tey jii dafa mel ni sax dañuy gën a indi climat de suspicion envers autorité ak sénégalais yi. mais mais climat de suspicion Pape li exactement tu as trouvé le mooy dañ koy gën a indi. Mhm. mais am na fi bu yàgg barki démb ñu ngi Euh, ñi ngi wax euh, les conditions dans lesquelles autopsie bi lañ moom moom lañ ko defee euh, dégg li ci ay avocat wax dégg li ci famille bi wax kii nii di xale bi faata woon ca Bignona bis muy faatu fii la ñu toog ñun ñuy def direct édition spéciale jour boobu mais ñi nga dégg ñépp ñu wax jour boobu moo di ne xale bi balu fetal moom lañ ko dóor mm-hmm. et ñi ko yenu yóbbu ko hôpital bu fekkoon ne dañ ko jam wala dara mais ku gis fu ku ñu jam ak ku ñu dóor balu fetal bokkul mm-hmm. malgré tout ñu def autorités yi yaayam wala yu wala bokk ci xeet boobu euh, famille bi depuis depuis booba dañu lank ne ñoom duñ ko nangu man maa ngi fàttaliku Xalilu Jéeme bi am na benn guddi mu woo ma ne ma Moustapha man j'ai problème ma ne ko lequel mu ne ma je suis à l'hôpital avec la famille du jeune Goudiab bi ñu faatoon ñi ngi mer ba futtu ne nan leen jox xale bi ñu dem defal seen bopp autopsie parce que dañuy xaar résultat autopsie bi génnagul am kenn ku ne ci hôpital bi wax leen ñëw fekk leen ñu toog ñu leen xale bi Euh, paaka dañ koo jam paaka moo ko rey quelque chose comme ça ñoom déjà il boobu résultat yi génnagul mhm. il disait que c'est pas vrai mhm. donc tey suñ ñëwee ba fii ñu ne lii la contre expertise bi wane man personnellement ça me ça me surprend pas du tout mhm. maintenant ce sera intéressant de voir les autorités judiciaires notamment lan mooy nekk seen réaction en fonction de li nga xam ne moom la Khalil wax léegi état du Sénégal mais tout à fait xam nga euh, rupture de confiance bi démb ñu ko fi doon wax mais tey jii nii di maanaam am autorité yoo xamante ne nii soupçonné tuñu leen ne sax dañuy kàcc mais ñoom dañuy kàcc réellement mm-hmm, mm-hmm. ba ay fait di ko prouver neexut a wax mais mi ngi mel ni moom moo am mais c'est ça yow kay soo génnee ne kii paakaa ko rey mm. ñu def expertise ne fetala ko rey loo def loolu kàcc mm, waaw kàcc la de kàcc la mm-hmm. te bu nekkee ci autorité la jóge mais c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que ñoom fi mu toll nii ñoom ñoo téye ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñoom ñoo war a teg yeneen sénégalais yi si yoon voilà bu nekkee ñi nga xamante ni ñoo war a tegaate ci yoon ñoom dañu sori yoon bi trop narka ñi ñi koy waxee di di ci di ci topp ce n'est pas possible mm-hmm. te euh, li ci gën a leneen li ci gën a garaaw euh, le gosse kañ lañu wax ne lañ ko rey le 17 17 juin mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi tey aujourd'hui tey le 20 juillet 20 juillet yaa ngi imaginer loolu pendant tout ce temps ñu ngi téye quelqu'un dans une margo benn chambre froide. ci benn chambre froide mënuñu koo jébbal boromam. Mhm. pour pour des raisons uniquement politiques. parce que lii ay question politique la. bëggoo na taqal nit ñi naan ay dañ ko nu mu tuddati ay objet tranchant ko rey. pour mhm. setal régime bi. Mhm. loolu lañ ci jubloon donc c' est des raisons éminement politiques. tax nga jël nit bàyyi ko pendant plus de un mois. ci ab morgue ci ab chambre froide ay mbokkam toog euh, euh, amuñu ci accès. ay euh, ñeneen ak ñeneen amuñu ci accès mais loolu vraiment ñaawaay mënu koo weesu. Mhm. léegi nag bu ñu euh, évacuer dossier boobu dañuy permettre ñu dem ci beneen dossier parce que am na keneen ku fi génn àdduna ñu am luñ ci waxaat sénégalais yu bëri jàpp ne lañu waxoon ci Idrissa Goudiaby bi la ñu waxaat ci loolu. mooy dañuy kàcc. dañuy kàcc. Mhm. parce que joxewuñu aucune raison boo xamante ni mun nañ ko teg ci boppu sénégalais yi buy mën a expliquer que waa ji mu ngi woon chez lui Euh, en en en bonne santé. Mm-hmm. nga jëlee ko foofu yóbbu ko commissariat lu mun di xew bu fa jëlee bakkanam seen responsabilité nga. absolument. lu mun di xew seen responsabilité la parce que ñoom ñoo ko jëlee këram alors qu'il en très bonne santé léegi kay la la meilleure des choses mooy nga accepter déjà ne suñu responsabilité la parce que ñun ñoo ko arrêté il était en garde à vue. Mm-hmm. comme ni Bocandé def. très bien comme ni Bocandé def léegi yow soo commencé par assumer tes responsabilités ne. ci ñun la ñàkkee bakkanam loolu ñu ngi koy mettitlu léegi dina dinañu enquête pour xam naka la demee loolu sax xëy na boo ko tegoon ci bopp sénégalais mais ñu comprendre mhm. mais yow mënuloo jëlee nit ci euh, kaso ba ci ci këram yóbbu ko kaso mu nekk fa ak ay nit ñoo xamante ni témoignage yi ñuy def encore bokkul dara ak li procureur wax moom sax waxoon na dafay def appel à mais kenn xamul fan la mujjee waaye du ko def xam nga bu toogee mu ne nañu te loolu pencoo bii paase rek wax naa ko fa bu soo xoolee son profil nga bëgg ko comparer ak ay commerçant ak ay tailleur yoo xamante ne ni dañ leen a jàpp di leen di jiiñ ñoo ñu war a ragal. ñoo ñu war a ragal Mancabou mi nga xamante ne nekkoon na jaar na armée nekk pendant des années garde du corps nit kooku tiit jaaxle ba mbëkk ay miir xam nga ne loolu cohérence amu fa. Eh, eh. Euh, Pape Sané lu fu ma laa waxoon gouvernement pourquoi tu nous mens à tout moment moi je ne sais pas. waaw mais man je vais mettre un peu de bémol dans ce yàlla def na j'ai voir. les résultats de la contre-expertise. Mm-hmm. Euh, les médecins yi ñi ko def. Mm-hmm. ils n'ont pas rendu un bon service à la société sénégalaise. parce que autopsie c'est de la médecine légale. Mm-hmm. sooy wax dangay wax lu leer. danga nga naan kii bala ko rey. mais lañu wax. mooy que lii ñu gis niiroog na fu bal jaar. <laughs> Ah non si non. effectivement c'est ça le problème. comme dafa jeex tànk bu ko di débat. <laughs> niroon naa fa bal jaar bala fa jaar gën a yomb. niroon na waaw moom laa wax quoi c'est-à-dire la médecine légale lii. bal moo fi jaar. loolu yëpp Idriss Seck la ay nuances la ah, mais boo nee lii niroon na fu bal jaar. mais sa waay da indi encore polémique. Pape Sada jërëjëf. waaw waaw polémique waaw. Moussa Ba jaajëf.